waaw à côté ah di commencé njaal di ñaan yàlla nag li ñu fi indi nii mu gëj fi leen xamal ni le président Ousmane Sonko mooy ñëw ànd ak bu tax ñëw indi njaala rapidement dama leen di wax ni président Ousmane Sonko mu ngi jógee Ziguinchor ak délégation bu mag ànd si président conseil départemental Ziguinchor ak ay adjoint au maire bu takku mu ngi si biir délégation ñoom ñëpp ñoo ko gunge si ñoo fekk si ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo fi ci si Ziguinchor muy le maire de Ziguinchor le président conseil départemental ak ñi nga xamanteni ni ñoom la ñuy fi ci si ci fi si ñoom ñëw ànd ak mom fi ci keur yi pour indi jaar léegi nak lu may def moy damay jël kàddu bi jox ki nga xamanteni mom moy mooy njëriñ bu njëkk fi ci commune ci si euh, Bignona muy le maire momit mu wax délégation bi nga xamante ni ñoom ñoo ànd seeg le président Ousmane Sonko si kër gi. après na mu ubbi waxtaan bi delloo kàddu gi monsieur le maire mu indi njaalam ba pare yéen tamit famille bi ñu jox leen kàddu ngeen waxtaan ak merci. ci ay mhm. ñaan dañu jàngoon ba tey alxuraan xadma bi moo desoon mhm. léegi ñuy ñaan pour que ñu jàng xadma bi léegi yaakaar naa xadma bi du jël cinq minutes dan léegi mun nañu ñu jàng xadma bi effectivement c'est bon comme loolu mu ngi fii incha allah sëñ bi wax ko xasul nañ ko jàng lu ñu ko war a jàng. bu dee am na. Mhm. am am na am yóbbul. jàng leen ko ni ngeen ko bëggee parce que lii moo ñu indi. on a vraiment le temps. jàng leen ko ni ngeen ko pare.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 واجعله لنا واجعله لهم حجة يوم الدين اللهم انفعنا وانفعهم بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثولات وكفر بتلاوته عنا سيئات وعنهم سيئات إنك أنت مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتقبل منا ختم سورة ياسين وتقبل منا ختم قراءتنا القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيارة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيع اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان وارزقنا فضله من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان اللهم أمنا وأمن موتانا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا وبيد وجوههم يوم البعث واعتق رقابنا واعتق رقابهم من النيران ويمن كتابنا ويمن كتابهم ويسر حسابنا ويسر حسابهم وسقل ميزاننا وسقل ميزانهم بالحسنات وثبت أقدامنا وثبت أقدامهم على الصراط اللهم اسكننا واسكنهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اسكننا واسكنهم وسط الجنان وارزقنا وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اكرمنا واكرمهم بلقائك يا ديان اللهم جل القرآن العظيم ربي قلوبنا وقلوبهم وجلاء أحزاننا وجلاء أحزانهم وذهاب غمومنا وذهاب غمومهم وقائدنا وقائدهم وسائقنا وسائقهم إلى الجنة النعيم اللهم اجعله آنسنا في الوحشة واجعله آنسهم في الوحشة ومصاحبنا ومصاحبهم في الوحدة ومصباحنا ومصباحهم في الظلمة ودليلنا ودليلهم في الحيرة ومنقذنا ومنقذهم في الفتنة واعصمنا به من الزيء والأهواء وقيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالغافية غدونا وآصالنا اللهم اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومصيرهم ومآلنا ومآلهم واصبر سجال عفيك على ذنوبنا وذنوبهم ومن علينا ومن عليهم علينا بسر بسر عيوبنا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقوى قزادنا وثقة بك زخرنا واعتقادنا اللهم أمن من الجوء والخوف والفتن والنفاق والأكاذيب ديارنا وبلادنا السنغال وصائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه للروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته أجمعين وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه هدية متصلة إلى جميع موتانا الذين سقطوا لأجل حق بلادنا ولإصلاح بلادنا ومنهم إمائك أو عبادك ابن إمائك وابن عبادك آمين. ومنهم شيخ إبراهيم كولي وفامر غجابي وبنام السلسانيا وموسى درامي وباي شيخ جوب وشيخ ود ومنصور تشام والألسان باري وباب سيدي مباي وساجو كامرا وشريف عبد الله ماني وشيخنا نانجاي وميسا جي وغورا جوب ودودو فال وأخيرهم ممدو كوركبا اللهم اجعل أخانا كوركبا وارحمه واجعل موتاه آخر موتى شهداءنا في هذا البلاد السنغال اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر قانون السنغال واخذل من خذل الشعب السنغال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره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 auzubillah mina sheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi eh, ngi nuyu wa Bakunda eh, di naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, ñu ngi dellu siwaat ndaxte mbir bi bu mu amee bés bu mu Mamadou Korka Ba génne ci anam yu ham, xam mu nekkoon anam yu ñu ñaawlu ñi faat ko ci manifeste ñëwoon nañ fi ànd ak délégation conseil départemental ak mairie bu Bignona ñëw indi leen jàll waaye buñ ko waxtaanee keroog indiwoon nañu njaalu président Ousmane Sonko ñi waxoon leen ni que ah moo ñu yebal

jululu ñëw nag délégation am euh, ma ànd si ak euh, suñu équipe municipale suma première adjointe ñëw na waaye tamit coordonnateur fu commune yu bëri ñëw nañu rawatina coordonnateuru pastef bu Tangori ak bu Bignona ñëw nañu ànd ak délégation bi gunge président Ousmane Sonko euh, ñi ànd si ak kilifa bu mag muy honorable député Ndeye Nyima Goudiaby mu ñëwoon tamit indi njaalam euh, du ñu def lu dul yeesal njaal bi rek ne leen yàlla ñaan buñ fi ñaan na yegg fekk leen fa ci jàmm ñoom ñëpp ñun ci lim parce que nekkul mbirum Mamadou Korka ba kese la bëri na moom moo tax ñu ñëw tey nuyu si kër gi waye amna tamit ay moromam yu faatu si anam ni mi mal kon euh, ñu ngi leen di ñaanal yalla xare leen ajana suma kaddu fi la yam ñu jox ko président mom mu yegge leen jaalam you. ما ذكر الذي ما mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloom yëpp jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fekk fii ci kër gi ki nga xam ne mooy kilifa suñu rakk suñu doom muy korka mi nga xam ne yàlla def na li muy def ci moom di baayam monsieur Ba ñu ngi leen di ziar di nuyu maama bi ñu fi fekk di nuyu yaayam moom it sama maam la ndax sow la sant di ko nuyu bu baax eh, di nuyu waa koñ bi yëpp ak waa Bignona yëpp. mu ngi nuyu waa Bignona yëpp. waaye di nuyu waa senegal yi ñuy déglu yëpp fi mu toll nii. nee mu ngi nuyu waa Sénégal yëpp nga xam ne ñu

dafa mel ni rek deuil national la moom la sax. <coughs> li ko waral nag. nee li ko waral. mooy condition yi nga xam ne ci la ñu faatee Korkaba. nee li ko waral mooy condition bi nga xamante ni aji dem bi ni mu demee loolu daal moo ko waral. ndax dañ ko faat ci kaw mu ngi doon manifester.

manifestation à mon fait ci Sénégal. manifestation yooyu nag la Sénégal. À na Saint-Louis à mon Tivaouane à mon Thiès à mon Kermassar, à mon na Pikine mon na Dakar à mon Ziguinchor à na Kaulach, fait daal ci Sénégal à mon manifestation. manifestation yooyu lu mu un woon fii ci Bignona Non la un woon Ndar la un Tamba non la amee woon peuple nga xamante maintenu. ci Sénégal nga bokk fépp la manifestation à mon Sénégal.

mbok mi neena nak mu ngi masso bu baakha baakha baax suñu mi tok di masso wa keur gi yeb di masso wa keur bi yeb fami bi yeb ndax ñak bo gis rek ñak bi ci meti metti nyak ñak dom nyak ñak nyak gis ñak bu ci gëna metti moy ñak sa dom, ndax ku jur dom neena nak ku jur dom so sañon deug deug deug mooy yow ya koy jitu ko sañon deug deug deug yow yay dem bay ko moo tax bi ñu dugg see gis góor gi bëtam xonq cur nee na bu gis waa bëtam xonq jur cur ñu gis yaayam ji jur bëtam xonk cur mu xool ci yaay ñu am lu ñu métti lool mu am lu ko métti lool lool te jàpp ni métti na waa Sénégal yëpp te noonu mu ko méttee noonu la méttee waa senegal yëpp fi ñu toog nii di wax nee na fu ñu toog nii di wax ci direct bi ñuy def nii nga xamante ni ñu ngi koy wone direct. waa Sénégal yëpp a koy déglu di ko seetaan. Sénégal yëpp a ngi ñuy seetaan Sénégal yëpp a ngi ñuy déglu. moo garantir leen ni ni mu méttee ci yéen noonu la méttee Sénégalais yëpp. nee na nag mu leen garantir ni ni mu leen famille bi noonu la waa Sénégal yëpp. ak fu waay mun a nekk ci région ak ci diina goo mun a bokk ak religion euh, euh, euh, ethnie boo mun a bokk. ak fu mu nit nekk rek Sénégal. ñu leen wax ni ñoom ñëpp ñi ngi bokk ak yéen métit bi te ñu ngi leen di jaale lii nga xam ne moom lañu bokk. nee na ak fu waay nekk ak xeet boo mën a doon ak foo mën a nekk ci Sénégal ak foo nga xamante ni yaa ngi ko toog di xool lii ñu ngi leen di jaal ñoom ñëpp suñu leen boole ñu ngi leen di jaal lii nga xamante ni moom moo fi xew. ñuy ñaanal nag Korka. nee na nag ñu ngi ñaanal Korka. donte am nañu yaakaar ni bokk na ci ñi ñuy jox gradu shahid mooy martyr nee na donte xam nañu yaakaar na ni am na grade bu nga xamante ni ku dem ci jiyaat grade bi nga am moom korka am na ko waaye du tee dinañ yokk ñaan yàlla na yàlla xaare ko àjjana nee na nag nee na du tere dinañu yokk ñaan yàlla ko yàlla xare àjjana yu gën a kawe yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam yàlla yaatal ba melam oyofal suuf ci kawam oyofal suuf ci kawam eh, yàlla na fi mu tëdd fi mu ne nii gënal ko fuuf foofu mu tëdd yal na ko gënal fi mu jóge ñim fi bàyyit ci ay mbokk nee na ñi mu fi bàyyi ci ay mbokk dara munul remplacer Korka Korka dara mënu ko remplacer moo tax liñ leen di ñaanal moo tax liñ leen di ñaanal mooy yàlla may leen xolu muñ yàlla may leen yokk leen xolu muñ ndax koor ka xalé bu ndaw la won néna ndax koor ka xalé bu ndaw la. ku gis ay waajuram xamni xalé lañu. ku gis waajuram yi tok xamni koor ka xalé bu ndaw la. kon ñak bu metti la. donc ñak bi metti na. mënuñu fay lu remplacer koor ka. néna kenn mënu ko fay lu ko remplacer kenn mënu ko def. mënuñu len jaxal ba mu remplacer li ngeen perte. mënuñu indi jaxal ba mu remplacer koor ka. mais dinañ len delloo ci liñu bok ñun ñep muy yalla waaye nag dañuy delloo nag ci li nga xam ne ñun ñëpp ci lañu bokk muy yàlla ndax yàlla nee ndax yàlla lu mu namm rek mooy am lu mu namm rek lu mu bëgg rek loolu mooy am léeg mu jaarale ko ci ay loxo ak ay circonstances léeg-léeg mu jaarale ko ci ay loxo wala ci ay circonstances ñun ñëpp mu jaarale ko fenn waaye nag bi muy bind korka nee na nee na bu muy bind korka li mu bindoon ci moom ne moom lay dund àdduna rek nee lu mu bindoon ci korka ni loolu kenn mënul te mu dund loolu. nee kenn mënul fexe ba du dund loolu rek. alquran dafa ne ija jaa ajaluha la yastaxiroon saatan wala yastaqdimuun mu findal ko encore si alquran si li yàlla wax. mu ne bu waxtu bi jotee. nee na bu waxtu bi jotee. yàlla du ci toj du ci dolli lu toll ni saa saa nee nañu moo gën a tuuti seconde. nee na yàlla du ci dolli lu toll ni saa saa nag nee nañu moo gën a tuuti seconde. waaye du ci du ci wàññi it lu toll ni saa. nee nungko comme num ko dul yoké non la si dul wagné tamit du toll ni sa bu ñu nee bés sangam la. nee na bu ñu nee bés sangam la. ci bërëbu sangam la. ci bërëb sangam. kenn mënu ci dara. mënu ci dara. motax dañuy wax ni ragal yab yalla la. motax nak ñuy wax di wax ni ragal yab si yab yalla la. mom de gennul aduna parce que dafa demone manifester. nee mom gennul aduna parce que dafa demone manifester. dafa genn aduna parce que yalla dafa ni. foofu lay jaare nee na yàlla li nga xam ne moo ñu sakk ñun ñëpp moo ni foofu lay jaaree. dañuy nettali benn euh, histoire boo xam ne yàlla dafa yónni woon malakal mawt ne ko Ousmane Sonko mële dama bëgg nga dem jëlal mu ruuxam waaye nag yaa ngi ko war a fekk Bignona jeudi a 14h malaaka bi ñëw gis ni nekk na avance. mu ne kon ma jàdd usuy dem seeti fa kenn doog a ñëw bi ñoo na nee na euh, mu ngi nettali benn anecdote yàlla dafa yónni woon Jibril demal fële na le moomoo mu ngi foofu nga jëlal ma ma nga ko mawtu nga jëlal ma bakkanam mu ñëw fi ko yebal bala mu fay àgg mu gis ni euh, teel na agsi mu ma jàdd dem seeti keneen fële dem seeti par exemple dem biñ euh, usu yi balaa may dem fiñ ma yebal parce que fiñ ko yebal waxtu boobu la fa war a àgg. nee na bu mu yeggee foofu mu jàddoon di siyaare. nee na bu mu yeggee fu mu war mu jàddoon di siyaare. mu ñëw fekk fa Ousmane Sonko. mu fekk fa Ousmane Sonko. mu ne ah problème am na. mu fekk fa Momo mu ne problème am na. parce que kii 14 heures lañ ma wax ni wala ci laa war a jël ruuxam fële ci Bignona. ki mu fekk fii. dañ ko yebalal ne ko fële si Bignona foofu nga war a jëlee Rome mu ñëw fi mu jàddoon pour jël temps bi mu fekk ko foofu. mu ne kon te yàlla du juum. mu ne te ñëpp xam nañ ni yàlla du juum. su ko nee 14 heures war nga jël ruuxam Bignona rek dafa war a am. lépp lu ko sant su ko nee 14 heures maanaam ñaari waxtu yi war nga jël pakkanu kii rek waxtu boobu du weer du jaas. mu ne ni mu ñëwee toog. nee ni mu ñëwee toog. ki mu doon gane fekk fa beneen waa ji mu war a jël ruuxam. fi mu ne woon seet si mu fekk fa moomoo mi ñu waxoon ne ko dama jëli ruwam. mu toog di xool kooku. mu toog di kooku am lu mu yëg ci yaramam. am lu mu yëg ci yaramam. mu daal di tiit. mu daal di tiit. mu ne waa ji sa gan gii daal ñemewu ma ko. mu ne ko yow sa gan gi daal man ñemewu ma ko. comme yow da am bassan boo xam ne day naaw. mu ne ko comme yow da nga yor bassan bu nga xamante ni day naaw. dama bëgg nga abal ma bassan bi man ma ñibbi bi ñoo na. abal ma bassan bi man ma ñibbi bi ñoo waa ji abal ko basan bi. waa ji abal ko basan bi. mu ñibbi si Bignona. mu ñibbi Bignona. kële moom it jóge foofu. nee na kële jóge foofu. ne heure bi ñu wax jot na. heure bi ñu ko wax jot na. bi muy egg si Bignona. bu muy agg si Bignona. tombé kële di egg si Bignona. fekk ñuy daje ñoom ñaar Bignona. mu jël ruuxam dem yoonam. mu jël liñ ko santoon mu jël ruuxam dem yoonam. loolu li muy firnde mooy. nee loolu li muy firnde mooy. ñun ñi ñëpp dañuy dox rek. ñun dañuy dox rek. dañuy jàpp ni boo nekkee ndaw. dañuy jàpp ni boo nekkee ndaw. yaa ëpp chance dund lu yàgg encore que ki nga xam ne mag la. da ngay jàpp ni yaa ëpp chance dund mag bi. waaye bis bu ne nga gis koo xam ne entré na hôpital pendant trois ans. mu ne bés nekk ñu gis ku entré hôpital pendant trois ans. ñu branché ko ay tuyau pour mu dund. ñu defal ko ay tuyau defal ko lépp pour mu dund. te yàlla jëlu ko. te yàlla jëlu ko. nga gis xale bu jógee léegi football yi. nga gis ku jógee léegi léegi nii jógee ñëw dugg si douche bi di sangu. ñëw dugg si douche bi di sangu. ñu ne la daanu na foofu. ñu ne la fii la yem daanu na foofu. moo tax yàlla. nee na moo tax yàlla. su ne bés sangam la heure sangam la seconde sangam la kenn mënu ci dara. nee na moo tax bu yàlla bu ne heure sangam la bés sangam la kenn du ko werante kenn mënu ci dara. waaye teewul nag sabab yi mu koy jaare nee na sabab yi mu koy jaarale. mën na indi responsabilité. moom mooy indi responsabilité. moo tax. nee na moo tax. dinaa araftu Macky Sall. nee na dina araftu kii di Macky Sall mi nga xam ne mooy yebal ay nit pour ñu reyaate moom mi nga xam ne moom mooy yebal ay nit pour ñu reyaate ndax diggante deux mille vingt et ak léegi nee na ndax diggante ak léegi bakkan yu bëri rot na Sénégal bakkan yu bëri rot nañu Sénégal sànq bi ñuy jàng xatma bi nee bi ñuy jàng xatma bi sànq imaam lim na bakkan yi fi rot yépp imaam ci biir xatma bi lim na bakkan yi fi rot yépp te ñooñu ñëpp te néew ñooñu ñooñu ñëpp. ci manifester lañ leen faatee ci manifester lañ leen faatee. musul am. nee na musul am. lu tol noonu ñu ñu faat ci ay manifestation lu toll noonu ci lim lu ñu faat ci ay manifestation lu dul fukki atu Macky Sall yi. lu dul ci fukki atu kii di Macky fii bi ñoo na dong. nee fii bi ñoo na dong. lu matul at ci gannaaw ñëw naa fi bi ñu faatee eh, Mohamed Abd Abdallah Diatta. nee na fii si Bignona lu matul at ñëwoon na fi biñ fi faatee Abdallah Bignona ci diggante mars 2021 ak léegi six personnes fukki bakkan ak benn ci ay xale juróom benn ci ay xale faat nañ leen fi Bignona nee na fii si Bignona bi manifestation amee fukk ak juróom benn juróom benn faat nañ leen fii ci ay manifester rek te bu ngeen seetee manifestation yu mujjee yëpp Sénégal amul fu ku ñu faat feneen. nee na bu ngeen seetloo manifestation yu mujjee yëpp faatuñu kenn fenn. diggante février ak mars bi. manifestation am na fépp ci Sénégal. nee na diggante mois de février ak mois de mars manifestation am na fépp ci Sénégal. waaye bi ñoo rek ngeen dégg ni dóor nañu nit bal fital ba mu dee. waaye bi rek la dégg ni dóor nañu nit balu fetal mu dee. ñu bëgg wax Macky Sall nag nii. nee na nag ñu bëgg wax Macky Sall nii. loolu il faut mu jeex. loolu il faut mu jeex ci réew wa biñona Bignona nanguwuñu ko. wa biñona nanguwuñu ko. wa Casamance nanguwuñu ko. wa Casamance nanguwuñu ko. wa Sénégal yëpp nanguwuñu ko. wa Sénégal yëpp nanguwuñu ko. parce que bo sété ni ñuy utiliser armes yi. nee na boo ni ñuy utiliser armes yi ci biir gendarmerie ak police. ci biir gendarmerie ak police. luñu ñu réglementé la. luñu ñu réglementé la. bu manifestation amee ñii nga xamné ñoy ñooy duñu yi ak ay bal. néna ñi def bu manifestation amé ñi di alkaati duñu du ak ay bal. kenn ci ñom lañuy jox balu fetal yi kenn. kenn ci ñom lañuy jox balu fetal yi ñi ci dess ñëpp ay grenade lañuy yor ak yenen yo xamné pour tiital nit ñi la waye du reyaate. néna na ñeneen ñi ci des nak ñu jox leen ay grenade wala ñu jox leen ay bal yu nga xamante du reyaate motax su bal amé rek xam nañ kan moo ko tiire. moo bu bal amé rek ñoom ñooñu xam nañu kan mo tiré bal. bu ñu bëggoon ubbi enquête légui dinañu xam kan mo tiré bal. parce que ñom ñuy joxé bal bi benn bobu ñom xam nañu donc suñu bëggoon def enquête bu nga xamanteni ni dëgg la dinañu xam ni jiw mii la jox bal bi. léegi lan motax manifestation bu amé gis ngeen ni mu méttee woon Kër Massar mbacké le 16 février li fa amone amul fenn Sénégal feneen ak feneen Saint-Louis mais pourquoi faut yëpp déggoo leen ñu ne tiire nañ fa bal pour rey nit pourquoi à chaque fois fi suñu nee manifestation rek mënuñu tegle benn fan wala ñaar te neewuñu rey nañu nit Abignona pourquoi. nee na gis nañu foofu Mbàkke feneen ak feneen ak feneen manifestation yi am ñëpp gis nañ mais kenn mësul dégg ñu ne ci dëkk yooyu faat nañ fa kenn mais Bignona moom su manifestation amee rek il faut ñu faat nit. partout ailleurs mun nañu dóor ay grenades lacrymogènes mun nañu jàpp ay présenter euh, justice mais nous, depuis mars 2021, nous avons et un ba léegi mais fi bi ñu manifesté le 16 juin Idrissa Goudiabi, à Ziguinchor Abdallah Diatta à Bignona nous avons manifesté ci mars bi ñu ne Korka Ba à Bignona parce que scène politique bu bees mooy ragal nañu ay bakkan ndax àdduna yëpp teg na leen bët gis ngeen rapport bu américain yi bind gis ngeen rapport bu union européenne bind waaye pour pourquoi niñ koy moyotoo feneen ak feneen bu dee Casamance bu dee Bignona moom mun nañu autoriser alkaati yi dóor ci suñuy doom dóor ci suñuy rakk ay bal waaw loolu yëpp il faut ñu xool manifestation yi day am fu nekk mais ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo jiite réew dañuy bañ américains yi ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñu ngi ci bitim réew ñu xool li ñu nekk di def léegi li loolu ci yeneen réew ci yeneen région yi ci senegal mais Ziguinchor moom Casamance moom bu fi tolloo rek moom déedéet nañu rey rek. moo tax may wax Macky Sall ne ko lii dootuñu ko nangu. moo nag muy wax Macky Sall ne ko lii moom dootuñu ko nangu. ndax waaye waajuru korka bi toog. nee na waajuru korka bi toog nii ci wetam. ay rongañam di tuuru. ay rongañam di tuuru. mom Macky Sall gënu ko en tant que père de famille. mom mi nga xamni moy Macky Sall gënul ki tok ni di wajuru koor ka en tant que borom kër. domam Amadou Sall bi nga xamne tay mu ngi yor lu mu yor ci àll di dem fu ko neex te kenn attaqué wu ko kenn reyu ko gënul koor ka mi nga xamne ray nañ ko tay domu Macky Sall bobu nga xamante ni Amadou di dem fu ko neex si monde bi di dem lu ko neex di yor alalu ak mbolo mi di def lu ko neex si dekk bi. gënul doomu ki nga xamante ni moom moo génn tey moom lañu ñu faat soxnaam moom Macky Sall gënul soxna si saw toog fii di nga xam ne mooy yaayu Korka soxna Macky Sall gënul yaayu Korka mi toog nii kon réew suñu buggee mu dox bu ñu buggee jàmm am fa kenn ku ne loo yéenewul sa bopp bu ko yéene sa morom nee kon nag réew bu ñu bëggee jàmm am kenn ku ci nekk loo yéenewul sa moroom bu ko yéene sa bopp soo demee ci àdduna bi fu ne France gis ngeen manifestation yi fa amoon ñëpp xam nañ ni moo ëpp violence foofu te déggoo ñu ne dóor nañ fa nit bal balu fi daal nee nañu gis nañu France manifestation yu rëy ñoo fa amoon mais kenn musul dëgg ñu ne dóor nañ fa nit balu fetal lii nag moo taxoon ma wax ni nee lii moo taxoon moom mu wax nii gatsa gatsa bi ma koy wax nee bi muy wax kaddu googu ñuy wax gatsa gatsa yu métti yi moo tax ma wax ko yu métti te nag diine nangou ko. te diine nak nangou na loolu. diine dafa né buñ la tooñee. né na diine dafa né buñ la tooñee. boo balé baale baaleel. soo munee balé baaleel. waaye boo munul balé na nga fayu lu tolloog liñ la def. boo munul balé nak fayul lu tolloog liñ la def. an nafs bin nafs la wax. né na wax na ko ci alcorane né na bakkan. né na bakkan. ci bakkan. ci bakkan. bëñ. bëñ ci bëñ. ci bëñ bëtt bëtt ci bëtt ci bëtt loolu mooy gatsa gatsa. nee na loolu mooy gatsa gatsa ci ñu ko xamul. waxuñu leneen. nee na waxul nag leneen. dañu ne. dafa ni. persécution bi nga xam ne am na. bundu bi nga xamante ni ñu ngi koy def. ñi ngi tëj nit ñi. di ñi. ñi ngi dóor nit ñi. di ñi. ngi gaañ nit ñi. ñi. ñi ngi rey nit ñi. di nit ñi. am na limite am. am na limite. bu ñu atteindre limite boobu nag. bu ñu kenn ku nekk noo mën a waajalee sa bopp pour fayu di nga ko def. kenn ku ci mën a waajalee sa bopp pour bi nag bëri na forme. fee yi nag dafa bëri façon. ñuy woo ñëpp nag. nee na ñu ngi woo ñëpp. jàmm la ñu wax. jàmm lañu wax. bu ñu bëggee jàmm ci réew mi. bu ñu bëggee ci réew mi. bu mu amati korka ba. nee na bu mu amati beneen korka ba. bu ñu bëggee jàmm ci réew mi. bu ñu bëggee jàmm ci réew mi. ñoom ni ñuy samee seen njaboot. ñoom ñooñu ni ñuy sàmmee seen njaboot. jël alalu réew mi teg seeni loxo njaboot. jël alalu réew mi yëpp teg ko seen njaboot. ñu nekk ci ay avion di tukki. ñu nekk ci fu di tukki. dëkk ci ay pale dëkk ci ay palais. buñ ko mënul defal yeneen jeunes yi. buñ ko mënul defal yeneen ndaw yi ci réew mi. nañu xam ni ñu am nañu les mêmes droits seen waajur am nañu les mêmes droits. mais nag nañu xam ni ñooñu tamit am nañu les mêmes droits seen am nañu les mêmes droits. suñu xol tooy na trop. nee na nag xol tooy na. te di wax nag bu kenn gëmloo Sénégalais yi. nee nag bu kenn gëmloo Sénégalais yi. rawatina ndaw ñi. rawatina ndaw yi. que lii ku ci nekk. ndax lii ku ci nekk. boo ci gé bu la ci yàlla jëlee. bu la ci yàlla jëlee. da ngaa dem safara. da ku ko wax da nga wax sa bopp rek. nee na sa rek. sa poos moo tooy rek moo tax ngay wax moo tooy. ndax nag. nee na ndax nag. diine gi kenn moomu ko. diine gi kenn de duñu ay imam. mu ngi firnde ni ñun duñu ay imam waaye boo dajale woon cent imam ci senegal boo dajale woon cent imam ci kaw ci kaw àddina euh, bi fii cent imam yoo dajale ci senegal nee na yoo dajale ci Sénégal doo am benn benn bu lay féddali ni loolu ñu wax dëgg la doo am benn imam bu lay wax ni loolu ñuy wax naan ku ci dee safara nga jëm doo am doo ko am dafa am loo xam ne sax dañ koy bàyyil yàlla nee am lu nga xamante ni sax du nit mooy dugal nit safara du nit mooy dugal nit safara du nit kon nee na kon nag ñu ngi jéggalu ci guddaay wax bi nee na ñu ngi jéggalu ci wax kàddu gi ni mu guddee waxuñu waxu politique waxuñu nag waxu politique waaye li ñuy wax liy jëriñ réew mi la liy jëriñ réew mi rek la ñuy wax parce que nag egg nañ ci ligne rouge bi de nee na nag àgg nañu nag ci limite bi nag ci euh, maanaam trait bu xonk te li am feneen ak feneen mun na am senegal te lu am feneen ak feneen mun na am Sénégal te ñaanuñu yàlla mu am Sénégal ñaanuñu yàlla nag mu am Sénégal kon ñu ngi leen di masaw bu baax. nee na mu leen di masaw bu baax. di leen wax ni colère gi nga xam ne moo doxoon suñu diggante korka. nee na nag bi nga xamante ni moom moo doxoon incha allah dinañ ko wéyaleeg waa kër gi. nee ko wéyaleeg waa kër gi. tey lañ koy gën a saxal sax. tey lañ koy gën a saxal. lii bu amuloon. nee xëy na lii bu amuloon. peut-être du ma gaaw a ñëw fii ci kër gi. du gaaw a ñëw waaye colère googu muy man muy ñi ma seqal partie bi nee na boobu muy moom mi toog ak ñi nga xamante ni ñoo toog ñu seq moom parti bi. tey lañ koy gën a saxal suñu diggante ak juróom tey la ñu gën a diggante bi nga moo dox seen diggante di gën a encouragé nag la jeunesse de Bignona. jeunesse Bignona yëpp nee na mu di gën a encouragé. ñun de amuñu seen fay. nee na nag kenn seen fay. seen taxawaay euh, c'est extraordinaire. nee na seen taxawaay c'est extraordinaire ñëpp gis nañu. di leen wax ni yaakaar gi ngeen am ba tax ngeen sonn ci. nee na yaakaar am. ba tax ngeen sonn ci mbir mi yéen ak jeunesse Sénégal bi yëpp nag yéen ak jeunesse Sénégal bi yëpp yëpp léeg-léeg ma xaw a tooñ waa Bignona sax ne leen bu ngeen moytul waa Mbàkke romb nañ leen léegi nee na nag léeg-léeg mu tooñ waa ne leen bu ngeen moytul waa Mbàkke romb na leen léegi yaakaar googu nee na yaakaar googu je je je fais la promesse solennelle fii nee na nag mu ngi def benn digee fii maa ngi koy waat sama diggante ak sama borom. nee na mu ngi koy waat ci ak borom. du ngeen ci musa am déception. nee du ngeen musa am déception dinañu def tout pour être pour vous rendre fier d'avoir cru en nous. néna nak dinañu def de telle sorte que delloo len djukal bu nga xamanteni mom len leen war kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. nee na mu ngi leen di gërëm ñëpp. wax di leen sante bu baaxa baax ci li fu nek xalé yi ñu fi nek ñëpp. léegi imam imam sow leen imam imam fi nga toog noonu da ngay def ñaan da ngay def ñaan bu famille bi pare nga defal ñu ñaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulillah. Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi. ñëpp ñëpp gisoon jëloon jaale si suñu bokk di jaajëfal administration bi fii ci di ko seede lii njaboot jii mu fekk di njabootu Mamadou Korka Ba ñu gëm yàlla lañ waaye itam ñu bëgg seen réew lañ lii bu ma xewee ba léegi monsieur le maire bu Bignona ak administration Bignona yëpp mais municipalité bi conseil départemental bi moo leen maire yi fi nekk

parce que balaa nga doon jullit da nga njëkk doon nit te nit moo génn àdduna ñëpp bokk ko moom foofu mu jëm yàlla ko gënal fii mu jógee te gëm nañu ni ki loolu la ndax wax na ko fi sànq shahid la moom waxu ko yonent sala sala moo ko wax te yonent lépp lu mu wax dëgg la nit ki nag comme ni mu ko waxee bu ñu la tooñee soo manee baale nga baale soo manta baale nga fay. akibu bi mislu ma uxitum bi alxuraan moo ko wax da comme nu ñu la dale léegi nag ñun bi ñoo saa yu luy xewee ñun ñooy gën a sonn lu tax kenn ku nekk war nga poser question boobu kenn ku nekk war nga poser question boobu lu tax toujours benn lii bi la kon dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom yor jàmm yàlla nu yàlla jàmmal

jàpp jagleel yenn bi projet bi jagleel benn bi koo xam ni moom la projet bi moom la teg ci bopp projet bi jagleel benn bi Sénégal yëpp muy juróomi yaasin li jàng du ma ci sori li jàng baatin xam nañu juróom yi lan la xam nañu chiffre juróom lu ko teg ci Sénégal ba pare ma ñëw ma fekk imam bi ma ne kan ma la jox chiffre juróom bi mu ne xol bu set rek te lépp lu doomu aadama jëf ci xol bu set yàlla day fay ndax yàlla xajul ci aduna way xaj na ci bir xol bu set kon jurom bobu ñu taamu def ko ci yàlla ñu yàlla jox juróomeel jurom bobu ñu taamu mu nek ci ñu def ko ci alquran bi yàlla ko ci barkem yàlla kenul ñu yeen jeune bi ñoray là je parle en tant que jeune de Bignona